asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu leen di nuyu yeen mbokki julit yi mbokki talibé yi xarit yi soppé yi wóolare yi di leen jotalil xibaar bi nga xamné mo ngi joggé ko ci groupe sopp khalifa basir Ndaw yal na fi yag lool taxam jàmm ñu taxawal benn liggéey bo xamné liggéey bu am solo la concerné talibé yi yépp ñuy ñaan nak képp ko xamné ne yaa ngi nekk ci groupe bi nga inscrire wu ci numéro bi ma lay jox muy numéro Cheikh Omar Ndiaye secrétaire général groupe sopp khalifa basir Ndaw yal na fi yag lool taxam jàmm muy 77 519 18 38 jox ko sa tur jox ko sa sant wax ko fi nga dëkk ñu xam ne bokk nga ci groupe bi te fas yéene nga ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne dañ ko tuddee liggéeyal sëriñ bi. legel serigne bi nak lañ ci nam moy andak serigne bi ci mbollem sank yi nga xamne mu ngoy taxawal fi ci daru salam ak mbollem lo xamne ne la mu aju ci walu gam gi moy television ak ko yu demee non ak mbollem organisation bo xamne day aju ci gam ak siyaare yu demee non ak mbollem organisation xamne serigne bi da koy xamal ko yaata nak ci taalibe yi nga xamne aju nañ ci kër Cheikh Seydi El Hadji ndaw rawati na taalibe yi nga xamne ñu ngi jappé tariqa Cheikh Seydi Mahamadou Basir koo xamne message bi egsi na ci yow te groupe intéressant boko contacter rek dana la dugal ci groupe bi su fekkee ne groupe intéressé wu la tam te nga bëgg a bokk ci liggéey bi su boobaa boo waxee mu jox sa tur jox sa sant wax ko fi nga dëkk mu bind la weer wu dee nga participer participation yomb na 1000 francs kese la jàpp ba sa xëy fu mu toll su ko defee nag ñu ngi ciy woo taalibe yëpp ñun ñëpp ñu àndandoor liggéey Daaru Salaam jëm ci kanam ñu àndandoor liggéey Daaru Salaam jëm ci kanam